toolul amal maanaam guddi mébét jàpp ne da nga gudd fan te lépp lu amutoon mi ngi ñëw loolu la ñuy bañ waaye jëmmi mébét ci boppam yaakaar ne sa dund desandi na loo mën a jariñoo moom mënta ñàkk ndax bu fekkoon ne da ngay jàpp ne doo weesu tey tey tey lu amutoon doo ko am mukk mukk kon doo sawar ci def dara dara doo bëgg a weesu sa dund tey tey moo tax addis ba ne al amalu rahmatun min allah falawlaahu lama garaza garisun shajara wala ardahat ummun waladaha yaakaar yërmande la ju bàyyikoo ci yàlla bu fekkoon ne bu fekkoon ne nit du am yaakaar ci ne dana dundaat jariñuwaat kon boo gis kuy jëmbat garab mbaa kon yaay sax du nampal doom ja kon nag lañuy bañ kay mooy guddi mi bët ba fàttee waajal alaaxira waalam xamal bi ànd na sayra ci naka dox ga bil mari ak cam si sarihun aji gaaw la faraaxiban na nga fugloonteeg ahwaala mawtin tiiti dee yaa moo piixan yow aji topp da nga wóor ne bu fekkee ne yëgoon yaa ngi demit yaa ngi dem maanaam xamal ne moom taxawoo sa dund am na fu mu tàmbali am na fu mu yem te noo ko jàll moom wàññi ci sa dund te du del seeti loolu nag bu fekkee yëgoo ko itam xamal ne moom lu ama am la lam tadri xamoo xal anta ndax yow ma xal awtaari ànd ak aajo ya bi soxla ya fawqa shafa xafri xalaakin yaa ngi nekk ci kaw gugub paxum alkande xaarin mi aji jege màbb shafa bi ñu firee kugg ci wolof mooy catul pax soo demoon ba ca catul paxum kàmb ga nga xam ne léegi nga xam ne fa nga taxaw mën naa màbb nga ànd ak moom daalu ca biir loolu moo tudd shafa kon nag boo yeewoo na nga di séentu ne dee moom saa yu nekk ñu ngi lay gën a jege si te bu fekkee bari nga ay soxla yi àdduna nii nga di ci yëngatu loolu la ndax boo demee bu fekkoon ne faatu am pax la dox ngaa dox ba àgg ca catul pax ma nga xam ne ne ca moom rek daanu mooy des mën ngaa nekk soxla yi di yëngatu fekk na booba sag dee moom lu la jege jege la nga xam ne bu fekkoon ne paxum dee ci nga jëm dem ngaa dem ba àgg ci cat la nga xam ne léegi cat la màbb rek nga ànd ak moom daanu ci biir moo ca des amal bataalatu ndaal loxoy kese maanaam toog rek loxoy neen wa tadyiixul xumuri ak sànq dund ga bi xëyri maa ci ludul la nga xam ne yaani dana jariñ moom it fadaawuhaa jàngoroom ja yaduru day lor faalam na nga xam rek bi ànd na waxta saxsin ci naka waxtu jëmm daal min ahasi asiyaahi bokk na ci gën jaa teddi ay yëfam mi gën ja bokk na ci gën jaa foori ay yëfam fa ashxilanhu na nga ko soxlaale bil ahasi ca la gën a tedd toog rek nag loxoy kese bàyyi sa dund mu muy noonu rek ci neen loolu nee na kat lu mat a faj la li nga koy faje nag mooy mu wóor la ne waxtu nga toll nii di dund man dara lum néew néew mu gedd la ci yow kenn xamut nu mu toll ci xayma ni mu amee solo ci yow daanaka mënees koo wax ndax waxtu nga toll dong nga am li muy muy na ba noppi li ñëwagut xamoo danga ko fekkee ak boo ko fekkee lu ciy xew kon waxtu nga toll dong moom nga am muy loo xam ne amoo la ko gën a foor ci yow kon nag na nga fexe ba waxtu wi nga toll nga jeexal ko ci la gën a tedd la gën a tedd nag mooy topp yàlla ku ànd akuk sellal topp yàlla ku ànd akuk sellal daal fexeel ba di ko jeexale sa waxtu ba nga toll te xam ne moom dong kat moo wóor ni am nga ko waaye la wéy na te la ñëwut moom xamoo ca dara maamata faata wala mu am malu xaybun wala ka saaxatu lati anta fiiha wa daawi na nga saafara kasratal faraxi bari mbég war raaxaati ak i noflaay bi zikri ma ci fàttaliku la nga xam ne yëti dana dikk yaati nag mooy nekk ci téere bi ndax way wi amaama ci kanam min maradil mawti ci tawati dee wa sakret ak sukuraat loxo ñeel dee wal xabri ak bàmmeel wal xasri ak pang ba wa raaqib te nga fugloonteeg xaw la xoo tiitam ma wa zikri taqsirika ak fàttaliku sa gàttañlu fi amrin ci mbir saluha moom yiw na mën na itam salaha wa annahu ak naka moom yàlla yubghidu dana bañ yàlla màgg na dal faraxa mi le mbégte ba tey nee na léeg-léeg sax nga bégal sa bakkan tuuti ndax mu sawar ma wàññiwul dara waaye dëkke rek mbégteeg noflaay moom ëpp naa def lu mat a faj la li nga koy faje nag mooy di fàttaliku tawati dee maanaam fàttaliku ne da nga àgg ci tawat tawat joo xam ne wóor na la ne doo jógati fii nga tëdd boo jógatee moom ci bàmmeel rek nga jëm ngay fàttaliku ba tey dee ci boppam na mu mettee ak bàmmeel baag dundu barsax gaag bis bi la dekkalee ba nga jóg ñu jiital la jëmee fa nga xam ne fa la ñuy àttee kii ji nga xam ne mooy xew ci diggante yooyu yooyu yëpp dee ko fàttaliku dana tax kon sa xol tiit nga delluwaat ci yàlla ba tey ngay fàttaliku ay jamono yoo xam ne amoon nga jot man nga caa def lu baax gàttalu ca ba mu raw la loolu boo ko seetloo da nga xam ne jamono ji nga toll itam bu fekkee gaawoo def ci lu baax day mujj rek raw mel na joojee ngay rëccuwaat ni nga ko jeexale woon rek cig neen te defoo ca dara lu lay jariñ te itam ngay bàyyi xel ci ne yàlla kat bëgg na sax ab jullit bëgg waaye daa bëgg mu bëgg ci ak topp ak lu baax te bañ a bëgg bëggum puukaréew moo xam ne da koy fàttiloo boroomam ak ëllëg nag te mel noonu yàlla bëgg ko am na ci alquran sax inna allaha laa yuhibbul farihin ba tey addis ba nee na inna allaha yuhibbu kulla qalbin hasin yàlla day sopp bépp xol boo xam ne day jàq ndax di fàttaliku ëllëg ak xamagul ëllëg lu mu demee ci moom amma ida nasiita ndaal dem fàtte nga im xaalahoo mu ñëlam nga maa isaa atika ànd ak sag ñaawal ida xasayta ba nga moyee faalam na nga xam bi ànd dalikal im xaala ci naka googee muñal laysa bi ihmaalin du ak négligé du ak neenal am nañuy bind nag bi ànd zalikal imhaala te la baamuwaat laysa bi imhaalin déen bu di ak muñal la waññeel ko taala kawe na dañuy wax inna allaha yumhilu wala yuhmilu loolu nag mooy dëppoon teg soo ko bindee nii ci bi ànd zalikal imhaala laysa bi ihmaalin teew nag mel na ne laysa bi imhaalin ba tey yaa yëpp doon imhaal ba tey lu wér la daa wax ne soo seetloo ci sa bopp ne yaa ngi sëgg ci lu ñaaw rek di mooy yàlla te mel na yàlla tegu la wenn tiis mel na ku la fàtte mbaa daa yëgut li ngay def mu ne ah loolu leen la wóor ni yàlla moom dul gaawtoo mbirum rek mbir mu ne sàkkal na ko waxtu woo xam ne xam na ne dana ca àgg bu ci àggee rek def ca la ca yàlla kon nag di mooy rek di wéy te yàlla tegu la wenn tiis bu mu tax nga defee ne li ngay def dafa aayut mbaa dalaa nar dafay sa jëf akay dee séentu ne moom faw rek bu waxtu wa jotee lay dikk dikk bal li fa nekk daalika loolee istidraajuhu ab jayam la moom yàlla subhanahu sorelal naa ko lépp leerul ci moom min xaysu laa taalamu ci foo xam ne doo ko xam maanaam doo ko yëg sal na nga ñaan nga xufraanahoo njéggalam nga nee na kay soo dee mooy rek te mel ni yàlla dalaa yëgut xamal ne booba dalay jay rek bëgg boo dee daanu jël ba gën a rëy gën a metti ndax yàlla ndax yàlla mu wóor na ko ne kenn ku ne dana wéet ak moom ba mel ne kooka day jàpp ne moom rek la yàlla masa sàkk waaye mësta sàkk keneen amma ida aminta ndaal de wóolu nga min makaril ilaahi ci pexem buur bi fa daaka loolee tax jiirul ak dajërli la alayhi ci moom yàlla laa si waaxu du ulul moom mel na ne baatu tax jiir boobu xaalongu daañu ko firee ba tey tuuy maanaam xel mu gàtt mu ne itam ab jaamkat warta wóolu pexem yàlla yàlla sa xam nga ni mu jekkoo ab jaamam du jekki di ko fexeel waaye nag bu ko yàlla wanee jàmm ak loolu mel ni daa mën a mucc te fekk na ak mujjam moom du mucc wala mooy pexem yàlla kon nag jaam bi daa war di boole ragal ak yaakaar te bañ a jàpp ne lépp sotti na ni mu gis yàlla di ko jëflanteeg moom rek ci yërmaande noonaay sax jooyu déedéet loolu na boole yaar ragal ak yaakaar te bañ a wóolu mukk pexem yàlla amal xonootu daal naagu yermande fa tafakkar na nga xalaat wan furan te nga seet fii saxati rahmati ci yaatu yermande ja ndax wi kon nga làq albushara mbekk naagu yermande daa bokk ci yimata moyu ndax ab jaam bu naagu yermande day ñeme bakkaar te néewal lu baax ndax day jàpp ne moom ndegam ëllëg bu mucc lu ko xas raw rek kon raw na ko kon du jaram yi bàyyi dara la ko neex ci bakkanam wala moo tax naagu yërmaane baaxut ak lu mën di am daal bul naagu mukk yërmaande yàlla yërma naagu yërmaande rek moo yàqal jaam bi lu mu bari bari ay bàkkaar rek day tuub te jëm ci buntu yàlla rek te yaakaar njëggal ndax suñu borom moo ne yorante bi waxal ñi nga xam ne dañoo bari ay bàkkaar lool du leen si du leen seen bakkan woo rek ci xeetu mooy ñu topp ko ca nee leen bu ñu naagu yërmande yàlla ndax yàlla bàkkaar yépp lay jéggale qul yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamiha innahu huwa alxafuru rahim amma amaaka ndaal sa ngumba xan woyoo bi ka wali say sikk maxa ru'yati xaybi naasi ànd ak gis sikki nit ñi mahama waqaa saa yu xewee fa andirhumoo na nga leen gàntal wastur te nga suturaal xalehim ci ñoom abadan faaw yastur kon suturaal la ka ñeel la alxawrata awreja rabbu ko sa boroom nga dan ci ëllëg ba tey bokk na ci li mata moyu fàtte sa sikk di xool sikki jaambur yi loolu nee na mat naa faj ni nga koy faje mooy ngay fàttali ko ni nit kat li ci ëpp mu xam boppam boo xamoon sa bopp sa sikus bopp doy na sëkk kon nag nit ñi da nga leen di suturaal bañ leen a yedd xam ne yàlla rek mat ku bokkute yàlla rek matut te addis ba nee na ku suturaal awray mbokkum jullitam yàlla suturaal awraam ku xeñtu nag awray mbokkam faaw yàlla toppatoo awraam ba toroxal ko doonte sax ci biir néegam la mooy man satara awrata axihil muslim satara allahu awrata man tatabbaxa awrata axihi tatabbaxa allahu awrata suma yafdaxuhu walaw fi jaw fi bayti am na ku ñuy wax almadani nee na gis naa nit ñoo xam ne am ñu wooni sikk waaye naka ñuy tewoo sikki jaambur yi daal di ami sikk mu gis ñoo xam ne itam aman nañu ay sikk waaye bañ noppee bañ a geesu sikki jaambur yi yàlla daal suturaal seeni sikk nit daal li ci ëpp day umpale sikki boppam te nag di gis sikki jaambur yi loolu nag li koy saafara mooy ànd ak ñu baax ñi te déglu seeni ndigal bu fekkee ne gisoo ñu baax ñooñu ba mën topp seeni ndigal nag niñ ko waxee woon ngay déglu say noon la ñuy wax ci yow ndax li ci ëpp daañu xam say sikk te daañu ko faral di wax ngay dégg su boobaa nga jàpp ne yàllaa la baax rek xamal na say sikk nga bëgg ca te jéem koo faj amma dawaa u xubbi di duniyaa daal saafara sopp ji li àdduna allati ji nga xam ne xaqiratun aji xeebu la jiddan lool la daa dil millati fa borom diine ja fa fikratun moo di xalaat fi xistatil xadari ci woyofub daraja moom àdduna wa fi fanaiha ak ci jeexam nga ndax ay na jameexu salafi ana mboolem dawal ba ak it wa ay na maa ana la nga xam ne jamaa dajale woon nañ ko minal xoroor ci ay xeeti marchandise wal xay ni ak kee war na xam ak juróom kër baabu alku nañu jumaaxu mboole seen bu la yàlla nattoo nag bëgg àdduna àdduna bi ñàkk solo lool lool yàlla tewu ko fenn la nga koy faje rek mooy xalaat àdduna ci boppam ni mu ñàkkee solo ak ni mu gaaw a jeexee dangay seetlu rek ña jiitu woon fi dool anañu kee ci wolof mooy wurus ak xaalis ñu ne boo seetloo rek ña fi jiitu woon nañu bare woon ak nañu bare woon alal muy xeeti wurus ak xaalis muy xeeti jur muy xeeti marchandise yenn yi yépp rek boo dee xool day mel ni lu mu sàmm la lépp jaar na fi ba jàll ak loo gis rek lu mu nuru nuru lu rëy ak lu mu nuru nuru lu bari day dem ba jeex tàkk romb mel ne mësu fee jaar wa annaha ak naka moom àdduna lay sa déet moom daara xaraar yi muy kërug sax la naa ñeel na bal li fi nekk innaha naka moom daaru foofu min kërug ay njàqare la wadd tiraarin akuk loru nga seetlu ni àdduna mi jaar jaar rek la waaye du kër gu ñuy sax kër la gu ñu am ab diir boo xam ne sax du tax diir ba neex diir bi nga fi am boo seetlu nga am ci ay njàqare ki tiis mooy ëpp lool mbégte yeeg jàmm yi kon fal aaqilu aji xellu ëllësi mooy ka nga xam ne naxaa jublu na daaral xaraari kërug sax ga mujj taxidan mbir mu muy aji farlu fii kuli lay liñ ci gépp guddi wa naxaarin ak bëccëg kon ka xellu te xellu mooy ki nga xam dafa dëgmal rek alaxira farlu bu baax a baax bu dégg bëccëg am mat taman nii daal mubut fa antiraadu ko mooy sag diingat xalaa mawlaa ko ci sa boroom fas taslim na nga wommatu rek li maa jëm ci la nga xam ne xat fan la def na ko jekki di ma bët naa ak a neexoon yàlla def nangam yàlla defut lii nga ne ak a neexoon mu def ko leen loolu moom diingat yàlla la day mel ne kon da ngay wane ne yàlla yaa gën a xam ndax la mu defut nga mérut mu defoon ko te bañ def leneen déedéet loolu ñàkk teggin la dingat sa borom la lu yàlla def rek nangu ko te jàpp ne loolaa gën ndax falasta déet yow tàgg yi ngay xam ak daara ci jamono maa la nga xam ne yooxi bu ko dana la ko mujjale a xayru ndax aw yiw la am char wala ay la ax yow sama mbokk yuxliku ko wow dana la alak am innahu wala naka moom yusqituhu dana ko meraloo moom yàlla taxala kawe na fa fawid na nga féetale al amara mbir ma la jëm ci moom wala xaala ak melawa lépp lu yàlla def rek nangu ko jàpp ni loolaa gën ndax loolee ngay métit xamoo ba xam bu ko yàlla sottaloon aw yiw lay nekk ci wala aw ay walay alak mën naa am sax mébét ga ngay mébét lu bokkut ak la yàlla def yàlla far la ca mere kon nag mbir mu nekk féetale ko yàlla mi nga xam ne moo xam zahir sa moo xam baatin ba mbir mu ne rek bàyyee ko ko lu mu ci def rek nga ne noonu la bu la wóoree rek ne li ngay mébét xamoo ba xam bu amoon nu muy mujjeeg yow ndax mooy gën ci yow wala déet boo xasee xam ne loolu umpali nga ko rek daal delluwaat ci dogal ba nangu la yàlla def moo tax yonente bi ne woon sax laa yatamanna yanna ahadukumul mawta li dararin nazala bi wal yaqul allahumma ahyini in kaanat il xayaatu xayran lii wa tawaffani in kaanat il wafaatu xayran lii moo tax yonente bi ne bu kenn ci yéen sax di mébét dee ak lu ko man di dal daal bu mébét mukk dee lu ci suma metti metti su mënti ñàkk na wax ne yàlla bu dund gënee ci man daal dundal ma bu faatu gënee ci man jëli ma fi kon su mënta ñàkk na wax loolu te bañ a mébét jëmmi dee ci boppam amma dawaa ul man ni ndaal saa faras ñax ñax mooy defal kenn dara ba noppi di ko wax naa ko maal defal nangam maal defal nangam bul ko nag mën nangam yow di bul ko nag mën xaw ma foo jëm al man wal muy ñax bil xataa yi ci may faalam xamal bi ànd moo liyal iyaata yi ci naka aji méngale joxe ga xaqiqatan ci dëgg-dëgg xoo moom al ilaahu moo di buur bi fadalan ci ngëneel wa anta te yow waa sitatu rabbin diggale buur rek nga jàll boobu màgg na loolu defal nit lu mu rëy rëy rëy bul ko gis rawante ne nag nga di ko wax naa ko yow day li ma la defal bul ko nag mën nangam ak nangam ndax da nga seetlu ne ca dëgg-dëgg joxoo ko yàllaa ko jox yàlla jaarale ci yow ne la joxal kee rek li nga am xam nga yàlla la ko jox yàlla woon sa xol tam ne la fabal li jox kee xam ci dëgg-dëgg yàlla jox koo ko waaye yow ci sa bopp yow joxoo ko war ngaa sant nag ndax mën nga ci am tuyaaba bu fekkee defoo leen lu ko yàq yàlla jaaral na ci yow xéewal nga jaaral na ci keneen mu fay la ci tuyaaba boole ci tam dalaa jox rek na la joxal ma kee amma hamiyatun daal ak njomblu wa katratul xadabi ak barik mer wa xiddatum ak taruk mer wa dayxu sadrin ak xatu dënn bi taxa bi ci coono fahiya ñoom yooyu yëpp daal min axlaaqi seytaane ñi ngi bokk ci jikkoy seytaane laa yéen ku di ku ñu rabbu aha dana yal nan doole musal almuhin yàlla ki aji dimbalee min hu ci seytaane ku laxin ci bépp waxtu bari looy jomblu bari lay merloo lu tuutee tuuti rek sa dund xat ci xaat nga daal tàng yépp nee na jikkoy seytaan dong la gaaw a mer jikkoy seytaan dong la lenn lu koy faj li koy faj mooy dangaa waxoo saafaraam sa xel mun mooy ak xam bi an ci naka luy mbir laa fi la déet jëf xaqiqatan ci dëgg-dëgg illaa li rabbin dara muy ñeen ab booru jàll bopp màgg na li koy faj mooy mu wër la ne la li ngay mer ak xul ak tàng kenn képp ko def ci dëgg-dëgg yàllaa ko def bu feeñee ci mbindam fi tam daa feeñ ci moom rek waaye ci dëgg-dëgg yàllaa ko doonoon ca démb njëkk ngeen di ñëw fii mu jaarale ci moom rek loolu jaar ci moom dal ci sa kaw loolu nag boo seetoon ne ci dëgg-dëgg amul jëf ju kenn jëf ko may yàlla ah kon doo jekki di meraka tàng ka xultu te xam na rek dogal baax amaa ita pul ita ndaal dem na toof na la bisteex jaaleen ci yàkkamti fabra na nga toroxlu bi daf yi ci ak jiñam li fi jëlaal jëm ci borom màgg gi li ànd foo ngir naka gaawantoo yàkkamti yu waqiw day tàbbale fii lii maanin ci ak xañ wasa amin aku yokkat wala damit ak réccu xëy si yaan aku mooy yàkkamti mooy yu toq ci am xelam mu daal di gaaw rek daal ci soppandiku te teewlu ba xam ñu mën a yàqale nit doy na waar mën na ko yóbbu ci gaaw a dàcc ci mbir maanaam mel ne mu doon sàkku ngërëmul yàlla di sonn di sonn bu ngërëm la jege si mu yàkkamti daal di dàcc ñàkk ngërëm la ba tey mën naa am ñu wut loo xam ne lu ko yitteel la farlu ca lool dama dem ba di ko bëgg a am rek te yàkkamti yokkat dàcc daal di koy ñàkk nga xam ne yàkkamti mën naa xañ nit cër bu rëy rëy ci diggante ak boromam mën na koo xañ pajug aajo koo xam ne danga si woon na lool waaye yàkkamti rek tax mu yokkat dàcc deltu gannaaw moo tax ñu wax ci livana in lam tasta jil tasil su yàkkamti rek nga àgg ca la nga bëgg daawantu mën na koo yóbbe ak mooy ak réccu niki ñu sàcc yëfam mbaa mu réer mu jékki-jékki daal di gaawantu tuumaal ca kenn loolu mën naa am mu wëlbati ko feeñ ba noppi feeña ci keneen ku bokkut ak ka mu tuumaaloon mu boole ak mooy tooñ jëmm joojee te loola mën na ko rëccu diirub dundam ba tey gaawantu mën na ko yóbbe ak rëccu niki doomam merloo ko mbaa kenn ci waa këram mu daal di gaaw ñaan ko yàlla yàlla nangu ñaan nga loola dal ci kooka gannaaw ba nag muy rëcc rek ak a métirlu lam ko doon ñaane yàlla fekk na may na ba tey gaawantu mën na koo yóbbe xeeti mooy yàlla yu baree baree bari ndax gaawantu mën naa tax mu wax mbaa mu jëf-jëf joo xam ne ak mooy yàlla la te bu teewlu woon lu mu xamut laaj ko du dugg ci mooy yàlla googee waaye nag gaawantu rek moo ko ko yóbbe ci gàttal daal yàkkamte gaawantu moom li mën a yóbbu nit ci ay yi àdduna ak yu àllaaxira kenn mënu koo takk ka lim moo tax mu ne ku yàlla nattoo yàkkamte googu mu war a toroxlu jëm ci boromam ñaan ko mu tàggale ko moom ndax loo xam ne mën naa xañ nit yiwu àdduna ak àllaaxira mën na ko yóbbu itam lépp luy ay ak lori àdduna ak àllaaxira lu mel noonu te mooy yàkkamti ku ko yàlla nattoo rek mu war a dellu ci boromam ñaan ko mu tàggale ko moom foofu nag la yemale buntu ñaareel bi nga xam ne da ci doon wax xeeti caay-caay yi nga xam ne day tax jaam bi du ma nekk boromam da doon def nag caay-caay ba mu wax rek tuddal la la koy faj mu bëgg a jaar si nag ci buntu ñetteel bi nga xam ne muy ëmb xeeti teggin yi ak ngëneel yi nga xam ne jaam bi su xasee sangu bu set te mooy summi ko ci xeeti caay-caay yooyee kon nag solu ak takkaayu mooy tee sës teggin yi nag ak ngëneel yi mooy la muy soloo ak la muy takkaayoo kon nag albaabu lii mooy buntu ba ak taalitu bay aji ñetteel fil adabi ci teggiin wal fadaili ak nganeel ya yaalam xamal xabaana yal na nu may allahu yàlla fi daareeni ci yaari kër yi bi fadlihi ci nganeelam subhaanahu soreelal naa ko lépp leeral ci moom an nuurey ni yaari leer ya bi an na xayramaa ci naka gën ji la nga xam ne isdaana waaje na bi ci moom alfata cam sa talaazumul adabi moo di taqoo teggiin xaytuma ata fu mu fi man di dikk li annahoo ngir naka moom bi ci teggiin yasilu lay àgge xabdun ab jaam ila rahmaani jëm ci aj yërëme ji wa ilal jinaani ak jëm ci àjjana ya dafa ñaan yàlla maynu leeruk àdduna ak gu àllaaxira ba noppi nag ne na la wóor ne kat lépp lu nit di waaje rek taqoo ki teggiin moo ko gën taqoo teggiin daal mooy waajtaay yi nga xam ne moo gën ci lu nit di waaje ndax teggiin mooy taxa àgg ci yàlla mooy taxa dem àjjana maanaam jëf kese ci àndut ak teggin li ci ëpp mënees na ko bañ a nangu lépp luy àggale nit ci boroomam li ko yóbbu àjjana rek moo gën lépp loolu nag mooy teggin fokk lu man képp koo xam ne raama sàkku na alwasoola àgg li xadratillahi jëm ci péyu yàlla ba bi xëyrihi ci lu teggiin faxumarun ab dof la laa nabirun ba bu aji xellu dina ko bëgg a àgg ci yàlla te boole woo ci teggiin xamal ne dangaa dof rek waaye loolee ngay wut mënta am faw rek nga ànd ak teggiin door a mën a àgg ci sa boroom wa nataqoo tudd nañu bi annahu ci naka moom teggiin kaada xaw na yàkkoonu di nekk sulu say diini di ñaari sulu si diine maanaam di ñaari ceeri diine fa fadluhu kon gëneelam la yebiinu dana bir lu wax nañ ne diine boo ko defoon ñetti xaaj day mel ne teggiin moo doon ñaar ña kon nag diine ni mu rëy ak ni mu yaatoo te boo ko defoon ñetti xaaj ñaar ñëpp teggiin lay doon tegtale ci ne teggin moom amul moroom dañuy wax ni sax teggin ni mel ci biir diine daa safaanoog ni nga xam ne moom la naxwu mel ci làmmiñu arab ndax dañ ne naxwu daa mel ci làmmiñu arab ni xorom mel ci aw ñam fii nag moom dañuy wax ne teggin mel ci biir diine day mel ne jëmmi teggin ci boppam mooy ñam wa la ca des nag mooy xorom sax nga xam ne kon fii moom teggin moo fa ëpp lool lool nee nañu bu ñu nee nangam teggin